تاج العارفين بيت الولاية سيد البردة أحمد بن محمد السالم التجاري رضي الله تعالى عنه خيرا وارض عنه رضا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام بكم بفهم وحكم تعالى مدفع كف دفع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. nañu ko tontoo si suuf am nañu ko tontoo xol mu laajte ne xanaa du ma fay dafa laajte dafa laajte laaj boobu rek dama xam ne du ñàkk ki ñaan ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne ku la nuyu nuyoo bu sell boobu doo ko fayoo tiyaaba bi ñu ci waroon am na nopp jël tiyaaba yëpp waaye bëggoon na ñu ngi mos moo tax mu bëgg ñu tontu ko tabaraka allah muy nuyoo dina sell ci nuyoo yi ñu leen koy nuyu di leen ziyaare bu baax a baax guddi ajjuma ci di jéggalu yi toogaay bi bunt bi sànq maa ngi wax sama mbokk bi muy bëccëg ay boori vingt heures cinquante laa ko woo mu ne ma ñu ngi instant ma ko man di tàmbali mu ma vingt huit heures dix daal la ngeen man ko kon man man xam ko fekk Allahumma hudan bayyin ya. nu aman sebagai dapat video obat mau tak khawatir si jekul ulol keinginan di ziarah bahwa bahwa ini barakallah mengisi jidat kelifa kerdi alaji sinar lama dafa sës si suñu sëriñ dam na Abdourahmane Bari daanaka ak yii ñu mucc yëpp bu ko fekkee boggal la moom bokk na ci ñi mujjee gis sëriñ bi ci guddi gi loolu nag cëram la bi nga xam ne moom la ko ca Babacar Bari dox ci boppam tabarakallahu ñu koy ziar moom njabootam jël ziyaare bi ak nuyoo bi teg ko ci loxo moom tegal ñu ko ci waa gox yépp tabarakallahu ñu si jiital imaam bi nga xam ne wax ne ñëw na fi léegi fa tabarakallahu ñu ngi koy ziyaar mu ngi muy tabarakallah di amoon nañu mbégte lool bi fi ñëw ndax amoon nañu ne suñu kër la ñu ñëw rek te suñu mbokk lañ fi fekk waaye bi ñu toogee gis jotaay bi déglu wuy yi ak waxtaan fa tabarakallahu suñu mbégte dafa gën a yéeg rawatina nag ci kàddu suñu ustaas bi di ustaas Guèye wax na fi wax boo xam ne njàngale la ci biir tegtale la ci biir wasia di Cipiri wai itam yo secretary Cipiri moto wa xam koy def may fatati bi suñu seen samaatu cheikh la jox dama man bari wax ci alquran لأنه قل عزة وقل مثل وقصة وأحكام وليس به إرادة

na di jalan njub ak mbaax ngeen bañ a diggalante cara ak foo tabarakallahu njàngale ñu fi jàngale yépp firnde na ni ci ki nga xam ne دي سيدي أبو بكر سي رضي الله تعالى عنه موي سيدي الحاج مالك سي رضي الله تعالى عنه موي شيخ أحمد التجاري رضي الله تعالى عنه موي يونتبي صلى الله عليه وسلم يلا كوي جفيه ndax ñooñu musul ñu jóg ci ñaari mbir yi birri wa taqwa nit nag wala jullit ñaari laam lu baax wala jëf ju baax gi ngay def mooy ñiibal sa taqwa ndax taqwa yàllay kese la sa waxtaan yaa ngi wax suñuy yàlla suñuy nopp di dégg yàlla suñuy làmmiñ di wax yàlla suñuy yàlla daf may fàttali wa ibaadu wa ibaadu ki nga xam ne buy dox si bu sell lay dox kaw suuf waxin la du dox ngay dox nii déedéet dox bi ngay dox ci àdduna si jamono bi nga juddoo ba léegi yaa ngi dox dox boobu lay wax nga nag alquran nag yàlla dafa ne والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة هذا تأويله وما يعلم تأويله إلا الله القرآن بي ينسى من النواق من النواق تكن دفع من جبير قل وهو عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يعني عباد الرحمن ما يكون يخاف نقول له سكوسو ديتي لنقول له موي نقول مش لهم مؤمن يديرون بني دوخ بني دوخ بني دوخ بني دوخ بني دوخ بني دوخ nga juddoo ba léegi yaa ngi dox nee na dox boobu boo koy dox ci sa dundin da war a teey ndax boo teeyul doo dégg doo gis pour nga dégg wala nga mën a gis da war a teey kon teey boobu daf la war a yóbbu ci ngay dégg yàlla mu ñëw ci yow mu ba nga doon fitna ci sa ruux bi dal wala bëgg a wax dafa a wax ne ibaadu mooy bi nga xam ne ruuxam dafay dal ci jamono du ne ak nu ko yàlla feeñoo sa ruux bi bu dalee rek yàlla dana la won yoon waaye sa ruux bi bu dalul rek doo gis yàlla te boo gisul yàlla rek nga gis li jàkkaarloog yow mun nga toog nii rek nga jàkkaaroon seen kii bii rek sa bopp metti bu dee yow amoo yëg-yëg boobu ak tey boobu sa xel dalay yóbbu si seen kii xool kon man yàlla bëgg a wund foofu dafa bëgg a ne dafa bëgg wax ne lépp lu la dal ci sa àdduna ci sa dundin boo ci teew doo ko ci te boo ko ci gisul rek gisi sa morom te boo ci gisee sa morom rek te boo ko tooñee rek ak dox la seen diggante te nag ki ko rek moo la ko mun a baal waaye boo dee loolu mun na ñëw ci yow muy bànneex di naqar yàlla da loolay doon sa jubbal rab mu ne wa idaa xaatabahumul jaahiluuna xaalu salaama jaahil bi du nit ki ngay dajal jaaxil bi mooy problème mu adduna yi loolu la yàlla tuddee jaaxil ndax loolu jaaxil la ci keppaaram yàlla lépp lu dul yàlla jaaxil la foofu yàlla rek a moo tax mu ne bu la jaaxil provoqué bu jaaxil mun ta ñàkk nit la yaa ngi dund bëgg-bëgg adduna yi ak problème adduna yi dañuy ñëw ñu ñëwee nag nee na xaalu salaam waxal salaam salaam mooy yàlla bu problème yi ñëwee problème bu ñëw rek gis yàlla bu boobaa doo ñu ngi ciy gërëm di la sant bu baax a baax sa waxtaan yëpp njëriñ la al ulamaau warasatul anbiya borom xam-xam yi ñoom ñooy remplacé yonent yi waaye dama mos a waxtaan ak benn kilifa bu mag mu ne ma wóor yow ràññee ko compliqué wul xool ko ci ay waxam ak ay jëfam ci ay waxam ak ay jëfam boo ko ci xoolee war ngaa xam ndax kii waliw la wala du waliw Cheikh Ahmad al Tijaani radiyallahu taala anhu buñ koy bakkantalee sëtu yonent bi deret nga taxul waaye jikko yi nga xam ne moom la yonent bi yoroon jikko yooyu la Cheikh yoroon moo tax li nga wax sànq ne xutbu zaman man xutbu zaman jàppewuma ko lu extraordinaire ndax xutbu zaman nekk ko yomb na xutbu zaman mooy ki nga xam ne si jamono bi muy dund amal nga njëriñ askanam looloo xutbu zaman du leneen mooy ki nga xam ne jamono bi muy dund askan nga njëriñ kon ku dul julli sax mun na nekk xutbu zaman am na benn waaye bu tudd béykat bépp médicament boo xam ne day faj si dund daf ko jënd. dafa yor benn association boo xam ne fondation boo ne moom moo jënd médicament yi di faj ci biir yëpp moo tax boo demee si biir am na yenn médicament yoo xam ne ko fay lépp daf ko jënd may ko kooku mën na njëriñ askan kon xutbu zaman man jàppeew ma ko lu rëy waaye nag nekk xutbu ci jamono yëpp looloo mat a sax ba léegi ñu ngi waxtaanee Seydi Cheikh ba léegi ñu ngi waxtaanee Seydi Babacar Sy ba léegi ñu ngi waxtaanee El Hadj Malick ba léegi ñu ngi waxtaanee Mame bu baax seeni wax ba léegi boo koy jàngat dañ si gis sa loolu am njëriñ te loolu dañ koo wax defe ko noonu la ñuy naw moo tax boo déggee ci ñoom ku ne la gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee Muhammadu ibnu Abdallah kooku génn na ak na kooku nañ waaye rasul bi démb ku si ñoom ku la ci wax ñoom ne gis na yonent bi daanaka daal wax rek waaye bu ko neexoon rek man maa yore lépp ndax gis nañu gis bët bët ni maa kadabal fuaadu maa raa sànq ma koy waxtaan ak sama mbokk yi ci yoon yonent bi bi muy gis Jibril ba Jibril di ko wax yu maa kadabal fuaadu maa raa nee na sama xol bi lu ma lu mu gis ay nar du ay fen afa tumaaruunahu alaa an yaraa

te boo ko doonee rek ne gis nga ma neexee mun ne sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu mooy Haj Malick Si radiyallahu taala anhu Haj Malick Si mooy Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu Cheikh Ahmad Tidiane Chérif mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sa waxtaan bi am na solo lool waaye am na ci lu bare bare bare bare lu ma ci mën a développé waaye xam naa ne toogaay bi yàgg na waaye ay nit bu ñuy ànd ci yoonu yàlla lañ war a taxaw dañuy jàppalante dañuy dimbalante jàppalante bi ak dimbalante mu yem ci zahir bi kese bu mu yem ci matériel bi kese mutuellement dañoo war a dimbalante daayira loolu lay jëriñ zikr yi ngay yëg mooy yee xol bi zikr yi mu ciy yee xol bi wax ji mu day yee xol ndax man bu ma bëggee sëriñ Gueye mii ma toog ñu koy takk takk bi koy takk mun na maa yóbbu si sëriñ ndax dëkk bi ko bëgg léegi nag loolu nag am désordre ci biir xol bi waaye wasiya yi ñuy wasiyante ak dimbalante bi ñuy dimbalante moo koy ordonné xam nga sallallahu bi wax di ñëwee ci di ñëw ci préparé moo taxoon moo tax mu jël mu jëkk ko jàngal xaram ndax bu tàmbaloo woon foofu wax yu day désordonné wax yu day désordonné moo tax bi ko jibril di feeñu mu bëgg a xam lan la li ko jibril feeñu lan la mu bëgg koo xam dem na sax ba dund ko noppee dem na ba xalaat loolu mu fàttaliku ne jàng munut bind moo tax iqra ñëw da ko mu mel ni nag dafa laaj boppam man lan laay jàng lan laay jàng suñu bi tontu ko iqra bismi rabbika alladi xalaq jàngal sa borom bi nga xam ne moo sàkk ndax moom jamono bi muy nekk ndaw li maamaam yi doon gëm nanguwu ko ci biir xolam waaye dafa teggi ne dafa am yar bugg leen a weddi bugg wax ne dangeen ngeen li ngeen di wax du dëgg rafetal wax du leen fenloo moo tax danoon préféré bàyyi leen ñëw dem di wéet ak borom di nag lan moo war a nekk dëgg moom que lii nii ñoom ñuy wane man sama xol nanguwul ne mooy dëkk lan moo war a nekk dëkk moo tax ñu mën wéy li nga wax sànq wax bu am solo la tariqa bi boo ko buggee am foog nga bëree foog nga bëree ngay bëri ak sa nafs waaw nafs nag yàlla ko façonné kon nafs bi moo maa sa waaw waaye nag foog nga bëree ak nafs boobu Huwag ka pa rin mo. beam nasulmut main na. Nasulmut main na, nagpun nga ako. Ganun, binabal na ako. Ganun syariah ang sulmut. si Tumbuwe, mong gaagis nasulmut main na. Dahil nagnasulmut main na, nagwa kasi beam ko na. Sila makamay di puro Radia, mardia kamila. Mga Japanaw. te nag jombul kenn ku nekk mun na ko am muy góor ci jigéen nag góor yi ak jigéen ñoo ci yem ku nekk mun na ko am fa tabarakallah looloo taxoon mu doon wéet léegi wéet googu nag moom la wax sànq nga ne Seydi Cheikh moom it si rek moo daan tax muy génn wala mu gis jàpp moom moo ko jox ñu ko soxla woon waaw gannaaw bu mu ko amee waa ji nag pare na nga wax ak moom nga préparé psychologiquement moo tax nag Jibril daan nañu ko feeñ muy daw dem di si Sayyidina Xadija moo tax jigéen yàgg na am solo ci diine bu li góor mun a am si diine ji jigéen mun na ko am dafa fekk ne rek góor la yàlla yilif loolu desal ndax nag ay ñaari nit bu ñuy ànd fokk am ku jiitu même diggante ñun ñii fokk am ku ci jiital pour mbir bi dox loolu desal waaye fa yàlla yëg-yëg bi fay yëg góor am fa jigéen am fa guddi fa bëccëg ren am fa daaw amul espace amul temps moo tax mu lay wax ne arsh xejul ci suñu adduna gi ndax fi yàlla ne amul espace waaw amul espace moo tax suñu mag ñi ku leen bëgg a tënk si seen i jëm yaa ngi ci réew yu mag ndax li ñuy dox wala li ñu dox wala li ñu daan dox mooy dox bi kon ñu ngi duduwul fi de balaa nga koo xam nga nit si tarixa bi ba si yàgg nga daal di jàpp tuuti nga xool kenn si ñoom dana la fayko jubanti la fii nii yëpp ñi fi toog yëpp am na kuñ si mos a jubanti amul kenn ku fi mag mag ñi mosul feeñu jubanti la bu dee yaa ngi ci tarixa bi laa wax nga bañ si nekk waaye boo ci nekkee booy jàpp ñu lay jubanti jàkkaarloo woon ko sax ndax mooy njëriñ waaw suñu mbokk mi dafay faral wax mu ne sëriñ mooy suñu njëriñ loolu lay signifié waaw ndax li ñuy jàngal suñu njëriñ te sax waaw fa tabarakallahu kon daal ci gàttal jotaay bi nekk nañu loolu tey léttu nañ lu tax ñu yéex ñu yéex di fi ñëw ci jaww yi mbokk mi li mu tàmbale sànq nung koy nya tali be iman anda wa nurula ñu jital ci seydi jaw ñu nek ci ñi seluruh kami, am nañ seluruh bogal am nañ seluruh dakar am nañ fi dan ñom da ini ñeneen ñi nga xamne cellule yi nga xamne teewul fi ñii seen bis bi nee nañ nabiyee lay noonu lañ tuddee seen bopp nabiyee seen tur bi la waaw nabiyee dafa war a taxaw taxawaayu nabi sëñ bi daf ñuy faral di wax ne yeneen samay biti ku la gis dafa war a gis sa sëriñ ci yow tabaarakallah mbokk bi bi mu duggee léegi maa ngi koy wax petit ko dafa mel ni am na benn imaam bu fi am na lu mu doon bëgg rek dama ko bàyyi xel waaye dugg bu tey la dugg da ngay xam ne kii nuru nag sëriñ la waaw tànk nag taalibe demoo ba ñu lay jaawle sa sëriñ ak guloo mun naa ko waaw tamit boo demee ba ñu lay jaawle sa sëriñ bu ci bi sa bopp waaw ndax suñu cër yi ñu yor mooy suñu kiiraay suñu diggante suñu borom gis bu lekk amutoon dee du am man Adama lekk bu mu lekk pomp moo dindi moo dindi immoralité immortalité immortalité immortal moo dindi tamit lekk bu mu lekk pomp bi moo ko dindi bu lekkuloon pomp bi nit du faatu moo tax damay faral di wax ne foofu yi mal nécessaire la ndax moom Adama wa iz qulnaa lil malaa'ikati isjudu li aadama fasajadu jamono la jamono la loolu tamit beneen beneen mbir la ci téere bi boo déggee aaya bi di wax da ngay yaakaar ne yàlla dafa toog malaayka toog euh, maam Adama toog mu ne sujjóot noonu lañ ko signifié ci téere ndax noonu lañ ko mën a wut wootee dafa am ay aaya yoo xam ne foog mu wottu ko ñi ko ñi mën a gis nag nekk ci ginnaaw aaya bi gis ko ko mënul gis nañ topp ci li ñu gis rek moo tax warraasixuuna fil ilmi yaquluuna aamanna bihi kullun min indi rabbinaa wa maa yatazakkaru illaa ulul albaab wa idh qulnaa lil malaa'ikati isjuduu li aadama fa sajaduu mooy jamono bi maam aadama nekkee ci aljanna moom kese di yëg yàlla rek jokkoo ak moom boobu maam Adama contact direct la am ak am la am ak suñu borom amul lenn lu ko am loolu lay loolu la bëgg a expliqué foofu. illaa Iblisa mooy jamono bi ci Iblis duggee diggante moom suñu borom waaye damay faral di wax ne loolu maa nécessaire lool ndax maam Adama dafa xëy yàlla sàkk ko jox ko li mu doon waaye xamul woon a la ba léegi Iblis dugal ko ci erreur mu xam nag li mu ñàkk lan la. looloo tax yàlla ne ko da ngay wàcc si kaw suuf nag xeexaat ngir amaat bi waaye nag du jag du dana jafe ndax iblis si boppam bi ko yàlla rëbbee moom it nee na waa de may fay de yàlla fay ma yaa ne loolu lu leen waaye dem nga fay ko fay ma may yàlla ne ko demal waaye nag illa ibadallahi minhumul muxlasin ndax li mu ñaanoon suñu borom mooy ki nga xam ne moom la ko yàlla jëndee mun a am influence si di ko détourné yàlla ne ko may naa la ko may la nga am pouvoir ci kaw nit waaye nag illaa ibadallahi minhumul muxlasin waaw te ñun ñëpp nañ ci bokk bu ñu góorgóorloo rek nañ ci bokk tabarakallah yal nañ ci yàlla boole kon seen bés boobu di 9 novembre jàpp nañ ko incha allah ñu nag waa Nourou laa bëgg nañ ko teewee te danañ ko teewee incha allah ndax eh, tool bi benn tool la ku nekk dafa am parti bu muy bay si tool kii romb bu tool bi rafet ne parti bii rafet na ci tool bi de naan tool bi na rafet na lay wax kon ku nekk na bay waa ci tool ndax tool bi rafet parti bu ci mën di rafet rek tool yëpp la mooy rafet waaw kon fas yéene ñu fekk jokkante ak yéen kóllëre incha allah ñu bokk bis bu yàlla incha allah kon góorgóorlu leen ci wóolu seen tur waaye ñuróom seen i sëriñ waaw fa tabaraka allah wala suñuy sëriñ Sénégal xéewal bu mag la ñu kilifa yi fi yàlla boole fii ku fi tarxiis ak yaa ko tey waaw ku fi tarxiis ak yaa ko tey kon yàlla ñu yàlla taas si seen barke tabarakallahu ñu bañ a guddal ndax toogaay bi yàgg na kon ñu ngi jéggalu bu baax a baax a baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp hidayatahu wa niayatahu jamian bi nusrati bi bi nusratihi yatimmu al kalam assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh